adduna nag day dox jamono moo laaj loolu sama xeex yëpp yëpp yëpp génnut askan bi am li ñu bëgg sama xeex génnut dund bu seer bi mun a wàññeeku sama xeex génnut mooy sama dëkkandoo yi bëgguma kenn gis seen bët bi ci xonq sama xeex génnut mooy sénégalais bu ci nekk nekk ci jàmm bi loolu amee nag yàlla dogal am kilifa gu mag ñu koy wax monsieur le ministre Antoine Diome woo ma di kilifa ma dem wuy ji ko ñu we ñu wecceewut ne ay kàddu man ak moom waxtaan waxtaan bu yàgg te xaj na bi may dem niñ ma imposé woon jëmmam ak niñ ma ko présenté woon bi ma demee bi ma fekkee taal bi sëñ Tuubaa laa fekk di ab murit di ko bëgg sëñ Tuubaa toog nañ 30 minutes man ak moom di wax ci diggante Serigne Saliou ak sëñ Tuubaa ci lañ doon wax daanaka sore na loolu ci man ci waxtaan wi fi mu jaar diggante ak Serigne Saliou man nag dama di ndaw nekk ci dëkk bi ñu xam ma bañkat laa xeexkat laa lépp lu ma dugg dugg naa ci lu ma dugg dugg ma ci bi yàlla dogalee ma nekk ci biir Pastef xam nañ sama taxawaay xam nañ li ma man xam nañ li ma mënut kon bu yàlla dogalee ministre Antoine Diome tàllal ma loxo tey ni ma dafa bëgg ñu liggéey jàppale président Macky Sall bu fekkee bëgg naa réew mi tamay ndaw te am ñu ma yaakaar kon bu ma ko kon man bëgguma Sénégal parce que bu ma fay dem yéen a tax ndax li ngeen di jooy dama bëgg mu jeex ci réew mi ndax seeni soxla bu àggee ci moom man gëm naa ne seeni jafe-jafe dana jeex loolu moo fa yóbbu bu doon ab xaalis bu ñuy lekk wala bu ñuy dundee mën nañ koo lijjanti feneen ndax ñu ngi liggéey yàlla mu ngi ñuy dimbali suñu wërsëg ñu ngi koy am kon dafa am loo xam ne bu amee ma nekk ci dëkk bi di xeex guddi ak bëccëg may xeex di jooy ba président woo ma ànd ak président Antoine Diome ministre Antoine Diome kon bu ma ko wuy jiwut dëkk bi ñoruma kon nag maa ngi leen di xamal ne bis ni ki tey maa ngi ci ginnaaw Antoine Diome fas yéene ànd ak moom di liggéey ak moom dëkk bi nag ñëpp xam nañ ni dafa am benn contexte bu fi nekkoon ci jafe-jafe APR dëgg la metti na ci ñoom pour ñu am fi dara te dafa jot mu changé changé gi nag li ci jiitu mooy élection yii ñu jëm dañ ko war a sagale Serigne Mountakha Mbacké ndax gis ngeen cofeel gi mu am ci président Macky Sall loolu lu metti la am na loo xam ne mënu koo wax waaye ñun ñëpp xam nañ ne Cheikh Mouhamadul Mountakha ku am cofeel ci président Macky la ku ko wax ak ku ko waxut di sant Mouhamed Cissé mii sama wet ndax suma xarit la man ak moom du ay politique mënuma ko wax ci fii sama soxna xam na soxnaam moom xam na ñu muy àndal xam na parce que bëgguma sax ñuy dugg ci affaire politique parce que affaire xarit la man ak moom parce que bi ñu ko investir ci liste bi man am naa jafe mais heureusement am beneen dogal bu ñëw muy ministre Antoine Diome woo ma ma dem wuy ji ko Dakar ñu waxtaan kon daal maa ngi leen di xamal ne bis ni tey dem naa ci ginnaaw Antoine Félix Diome pour ànd ak moom pour liggéey kon nañ ñëpp xam ne man Moussa Mbaye bàyyi naa Pastef bis ni tey beneen message bi may lancé nag maa ngi koy lancé Ousmane Sonko suma xarit ma wax ne askan bi ay gone yu ndaw ñu ngi faatu ci ay manifestation yoo xam ne wax dëgg yàlla mun naa ñàkk nañu waxante dëgg ñi ma bokkal ay panel man xam nañ ni man noonu lay doxee parce que mënuma comprendre heure bu nu wootee manifestation ñu ne trois personnes dee nañ quatre personnes dee nañ te weesuwul dara loolu ku bëgg a falu loolu dama wax ne askan bi loolu war na dakk nañ ko arrêté ci nu mu gën a gaawee bëgg a jot nguur war mën a tax ñuy faat ay bakkan man loolu du ko cautionné duma ko rafetlu dañ ko war a dakkal ci nu mu gën a gaawee suñu borom mooy joxe cër ku mu joxub cër dana la ko jox mais am na loo xam ne bu ñu ko bëggee forcer ci réew mi danañ yàq Sénégal te jaru ko Macky Sall mi suñu borom moo tudd ci mu war a yor réew mi yor ko kenn mënu ci dara ñi koy yuutu bu ñu ko waree yor danañ ko yor kon maa ngi woo opposants yi sama mbokk opposants yi nga xam ne ci ñoom laa nekkoon nañu delloo si seen xel xam ne suñu borom mooy joxe cër képp ku mu war a jox cër na la jox cër mais mënuma d'accord ñu jël ay gone yu ndaw ñoo xam ne ñoo war a wuutu seen i wayjur war a yor seen i wayjur ñu jël leen di leen tekki terrain bi ñuy xeex ñu leen di rey ci zéro vraiment loolu dafa war a dakk ci nu mu gën a gaawee képp koo xamante ni soxla nga réew mi demal nga laaj ko ci xam-xam ak yar ak teggin man loolu laa gëm mais d'accorduma jël ay gone yu ndaw di leen teg ci terrain bi ñuy xeex di reyante loolu wax dëgg yàlla bu nu sañoon mu dakk ci nu mu gën a gaawee may wax waa dakaar tamit ni leen tabaski baa ngi jub si nit ñi ay xarit tabaski leen tal réew mi metti na wax dëgg yàlla te ku ci wàcc terrain bi tamit ñu rey la vraiment vraiment vraiment say mbokk ñooy ñàkk ak sa ak sa ak sa famille ñi nga xam ne ñu ngi mas manifesté wu ci côté Masaalikul Jinaan bi nanu ko moytu te warmaale ko Serigne Touba rawatina taalibey Serigne Touba yi ndax wax dëgg yàlla côté bu nekk war nañ faa mën a yëngu ba mu des barab boobu parce que gis nañ li fa xew bii passé ci buntu Masaalikul Jinaan ñu di fa taal ay daay loolu rafetut ab taalibeb Serigne Touba warut bokk ci lu mel noonu kon nag ñu ngi woo ñëpp am contentement bu bag di leen xamal nag ne man moom maa ngi ci gannaaw Antoine Diome da xam naa ne daa ko sànni gars aw xeer man duma ma Macky Sall Antoine Diome laa su bàyyi woon suba Macky Sall damay bàyyi pour mu leer man duma duggantu damay wax lu leer naññ moo ma dugal ci président Macky sàll pour ñu liggéeyal ko ànd ak moom te am naa ci yaakaar ne incha allah bi danañ jël ndam li teg ko ci ministre Antoine Diome jox ko ko mu jox ko président loolu man maa ko garanti te dana am incha allah rabbi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax a a baax mbooleem ku fi teew rek maa ngi lay sant jigéen ñi nag aw ma seen fay. vraiment aw ma seen fay maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax bu nu wootee kenn du leen fi jiitu bu dee élection yi vote yéenay génn dem ci bureau yi vote ji kon ñu ngi leen di ñaan ni ñu ànde combat bi ñu ànd ko ba jour élection yi jël ndam li jox ko ministre Antoine Diome mu jox ko président kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama goro yi nga xam ne nag ñoom laa nekkal fii di ay nit yu baax di ay kilifa soxna Jaw Gay moom sëñ Basiru Gay moo ngi fii sëñ Moussa Gay mu ngi woon toog fii kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant nag sama soxna Sukay Gay ndax nit ku baax la nit ku mën a muñ la maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm taxaw na ma jàppale na ma kon maa ngi koy sant bu baax a baax a baax lépp lu mu yaakaar sama diggante moom yàlla na ko san borom defal Mohamed yow mënumaa wax ci yow parce que lii boolewuñu quoi politique boolewuñu moo tax bëgguma dugg ci détail politique kon maa ngi tëj foofu di sant ñëpp mboolem ko fi teew rek maa ngi lay sant di la gërëm